ci yéeni kay Abdoulaye Bopp lañ dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëyee Pastef ak jafe-jafe ya ñu ne daanaka moo leen tënk ci cumul des doon député ba noppi walbatuku doon maire yéen cabinet moo ne de Birame Souleye Diop maire bu Thiès Nord adduna ci ñu bari doon xaar xëy na mu bàyyi ndombol tànk maire ga mu nekk wala boog bàyyi ndombol tànk député ga mu am ca assemblée nationale ay kaddoom ci Walf Quotidien jot naa leeral mel ni ku jëfewul càkkuteefu Ousmane Sonko Birame Souleye Diop ne doonul lu bokk ci texte euh, Pastef ndax ci atum 2014 jotoon nañ koo leeral 2022 ñu jot ko leeral te boo xoolee eh, Sénégal amul fenn fu ñu eh, tere ci wàllu loi mu ñeel cumul des mandats eh, bokk na ci biram Souleye Diop xam le ne Ousmane Sonko dafa tënkoon ci atum 2019 ne saay bu doonee président bu Sénégal dina ko dakkal Birame Souleye Diop jot na sax dakkal li nga xamante ne mooy nañ koy xorñale ak itamit di ko dingat ci googu lépp doxalin la mu xamle moon ne daal ñu koy xas ci réseaux sociaux yi ana fu ñu newoon ba muy programme ak ba noonu muy falu maire eh, ca ña koy xas ci réseaux sociaux yi daanaka ñoom kenn ci ñoom wotewul eh, bu ñu sukkandikoo ci Birame Souleye Diop yéen ka bi di enquête xëy ñu enquêtal géew politique beeg dialogue politique mi ñu ne ci jamono ji jafe na lool eh, kenn déggatul gaay toogandoo ci table di waxtaan yéen ka waxtaan amatul ci géew politique bi loole sax kambala gu ci diggante ku jeeg politique beeg nguur gi daanaka jaarootuñu taal mu Ndiaye Cissé bu ONG jàpp ne lay saafara si mooy njiit réew Macky Sall ak Ousmane Sonko war nañu mun a toog euh, su ko defee seen waxtaan joojee mun na jur euh, daanaka mbegte ci géew euh, politique bi yéen a kii di xëy waxtaan ak kenn ci jege ñaale njiit réew Macky Sall Moussa Fall lay wuyoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ma nga itamit dankafu njiit réew mi Macky Sall di ko xelal di ko xamal ne bu mu def mukk troisième mandat ndax du ngeneel na njiit réew Macky Sall fàttaliku la fi xewoon ci nguuru ko Abdoulaye Wade ga woon Abdoulaye Wade ñàkkee réew mi Eh, ci jafe-jafe loolee bu mu ci dugg bu mu déglu mukk eh, fokkon ya ca pale ba bu ñu sukkandikoo eh, ci ki nga xamante ne mooy Moussa Fall jàpp ne sax ne waxtu wa jot na ñu mun a tas tasar coalition Benno Bokk Yaakaar yéen a kaabi du Sud Quotidien xëye assemblée nationale vote budget euh, lay doon tey marathon budgétaire bi euh, pencum ndaw réew mi fas yéene jublu ci koppar yi Sénégal war a doxee ci atum 2023 yéen a kaabi ne daañ ci dalal jëriñu ñu dénk wàllu koom réew mi buñ ca noppee Yankhoba Diattara ngoonu tey ji jëriñu ñu dénk wàllu tàggat yaram daañ ko ca déglu waaye nag laaj bi samp mooy mbirum o conseil des collectivités territoriales Ismaïla Madior Fall jëriñu ñu dénk wàllub yoon euh, gis ne assemblée nationale bu fekkee ne blocage am na ci budget bi la ca war a doon taxawaayu njiitu réew mi euh, Macky Sall euh, mu ngi ci yéen kabi di Sud Quotidien yéen kabi di 24 heures euh, génnagul mouvance présidentielle mu ngi ñuy jégtal coowal njëndum armement ay ngannaay ya ñu ne waa eaux et forêts lañ ko war a jox te mu toll ci ñeent fukki milliards ak juróom loolee jur fi coow ñu jot cee laaj ministre bi di Karim Fofana lam ca leeral nag dalul xel yéen cabinet scandale yu bari jaar na fi ñu tudd ci ay ministre ak directeur généraux te lañ cay leeral daanaka du mun a toxi du mun a tabbi ci loolu loxo ci nopp askan wi ci ngeneel ndax jafe-jafe yi nga xamante ne moo tënku ci doxalinu nguuru ko Macky Sall yéen a kaabi di bés bi le jour ne njiitu réew Sall ana premier ministre am Amadou Ba mi kenn gisatul ci jamono ji bokk na ci ne daanaka defa mu newul lu bëri ndax ci jamono ji njiitu réew Macky rek moo fës waaye nag Sénégal fàtte na ne premier ministre a ngi fi yéen kaabi di l'évidence mu ngi ñuy dégtal li nga xamante mooy CAP di kuréel gi boot taskatu xibaar yi Eh, ci ajuma ji ci mbéjum mbeddum Ndakaaru ngir eh, ñaawlu tëjum kaso Pape ña nañ ko génne ci kaso bi yéen cabinet demb amal nañ ci tendefalu ñaxtu eh, ca maison de la presse xeex bi sax yematul Sénégal Reporters sans frontières dugg nañ ca yéen cabinet moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk yéen cabinet critique ne am ñu joxoñ baaraamu tuuma nguur geeg ku jeeg bi ñoom ñi lee bokk na ci ñi gàllankoor liggéeyu taskatu xibaar yi ci mim réew yéen cabinet ay droits de l'homme wax nañu dafa yenuwul maanaam dafa jaaduwul ñu teg loxo Pape Alé Niang ba ba léegi mu ngi ci yéen a bi di critique yéen a bi di direct news xëy wutali Fambine ab dëkk la gu féete ca diwaanu Fatick ca commune bu Jirnda yéen a bi ne élèves ya fekk baax ca Fambine jafe-jafe yu tar la ñuy dund bu ñuy jàngi dañuy xuus bu ñuy ñibbi itamit dañuy xuus bokk na ci amuñu yoon wañu jaar yéen a bi ne yéen saay seen sak yàq kay daanu ca biir ndox ma daanaka limbu takku ci ñoom ban ñu njàng ca Fambine ndax jafe-jafe njàng meek njàngale mi fam la ñu jógee dem ca ba tax na chef de village bu Fambine ma ngay woote wàllu ngir ngur gi mun leen a taxawu yéen kaa bi di la quotidien ne ñeneen ñu laaj taxawu mooy ay ñenn ci askan wi lottu nañu lool dund gi demeetul noonu gannaaw gëstu bu yaatu gañ ca def yéen kaa bi ne toll na wala boog weesu na benn million gu doomi aadama yoo xamante ne soxla nañu ku leen taxawu ci wàllu dund ah, fukki département ak ñaar yoo xamante ne loof nañu lool bu ñu añee du ñu ndekke réer wax noppi yéen kaa bi di le quotidien moo ñu ko jegtal jafe-jafe Sodefitex di usine googe di yëngu ci wàllum defarum ah, piis yéen kaa ci tëj la jëm ndax sàkku ci ay usine am ba ne ca Tamba Kolda ak Vélingara Kédougou eh, ci jamono ji ñu bari ca liggéeykat ya ñàkk nañu seen xëy eh, usine yooyu la te tëj rapp la jëm eh, bu ñu sukkandikoo ci Papa Fata Ndiaye mi jiite Sodefitex mi mi xamle ne la ñu xamee woon usine boobe daanaka ci jamono tàmbale na nës tàmbale na itamit surux ndax witeen gi demeetu ni rawatina ci atum ren ji yéen kabi di Le Soleil mu ngi ñuy dégtal na mu demee ci wàllu concours d'agrégation ci wàllu médecine ñeel kames ndaje moome ca Côte d'Ivoire Sénégal jot na cee ràññeeku daanaka buub na lépp yéen cabinet Sénégal gàddu na lépp ndax ci euh, juróom-ñaar fukki candidat ya fa woon euh, Sénégal euh, am na ca lu toll ci juróom-benn fukk ak ci ñoo xamante ne réussir nañu jàll nañu yéen cabinet ci ñooñee sax am na ci fukk ak juróom-ñeent yoo xamante ne rang major la ñu jël la ca gën a am solo mooy major de majors Sénégal gi moo ko gàddu yéen cabinet Source A xëy di ñu dégtal Amara Traoré mi joxe njàngat tam eh, ci gaañu gaañu ya Sadio Mané am ci wàllub eh, tànk eh, Amara Traoré ne loole war na mun a tax ñi des ci équipe nationale jiital fulaak jom fexe ba sigil Sénégal ci bile match waaye nag match la goo xamante ne nar na dis gan ndax Hollande mi Sénégal di daje équipe la goo xamante ne buy football ci couloir yi lay jaar maanaam ci laaf yi loole nag la soññee Aliou Cissé ngir mu bàyyi ci xel yéen a kaabiri Source di ñu dégtal xale bu jigéen bi di Nicole fay étudiante ci wàllu master 2 foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Nicole Faye dafa wànnu lor eh, yéen cabinet ba eh, doom juddu ca mu am kum ko tuumal waa ji mujjee ko wor yéen cabinet Nicole nag eh, gisul lenn lu dul faat na liiram googule yéen cabinet ab responsable APR la ko tuumal waa janga dëkk ca jida caaroy kaw kumu laaj lagu samp ci waxtu wi de ci ah, loolee tax mu dippee ko sifaahu jooni jooni Cheikh Ousmane Touré nee dina faj di tension hémorroïde interne externe estomac rhumatisme ballonnement muy biir boo xam ni fu mu toll di jooy ah, lii di kuli nag ak góor gu impuissance sexuelle fatiguement générale nag moo ci man yéen ñi bëgg am adresse ki nga xam moo di Cheikh Ousmane Touré mën ngeen ko fekk fii ci Dakar Guédiawaye Sam Notaire match jeudi en face terminus 38 dama ni jël leen gaaw 57 11 Sufa wu joni joni daal mooy mos dolli.